وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين mbokki taalibe yi ki ko sëñ Bara waxe léegi rek ñu jëlee kàddu sëñ bi moo ñu joxoon ndigalal ñu ñëw teewal sa ko fi ci bis li ko sabab rek mooy bokki taalibe yi yàlla dafa dogal jamono yi ci ginnaaw ñu dikkoon ci man doon sàkku lu leen jàppale ci seen wàllu ñu jàng ci ngir xam seen diine wax ma ne ma dañoo dégg ñu da ngay yëngu ci lu mel noonu te ñu soxla ci ndimbal ba ak jëf leen ci amoon sama diggante ak ñoom bi ñu ñëwee Touba wax ni bis bi dañ koo bëgg tuddee sëriñ Bara bëggoon na sëriñ bi yëg loolu ba jox leen ci ndigal ñu waxoon na nag dañoo taamu mu ñëw ànd ak man comme yàlla dogal na ñu jëf leen ci lu yokk seen wàllu xam-xam ci wàllu ñu gën a xam seen diine moo doonoon sababu ba àndoon ñoom dem ci sëriñ bi ñu demee ma xamal ko loola le leeralal ko ko mu wax nii wax ma ne ma léegi boo demee na góor góorgóorlu bu baax ci jàppale leen loolu ñu soxla ci yow nga dimbali leen ci bu baax te jàppale leen gis booba dox nañ leen ndigalal tudde ko fi ko bëgg tudde am nañ ci ndigal buñ ci eggee bu bis baa na nga dem teewal ko loolu mooy sababu teewaayu tey bi mu jub si sëñ Baara wax na ko léegi ngay salaat na ndigal loolu mu xamal ma ne ma jokkoo nañu sëñ bi waaye la rek la wax bi ma jógee bay ñëw jaar naa fa ba mu yeesalaat ndigal li ne ma daal na dem teew fa waaye dafa mel ni li ko gën a yitteel daal ca biir luy wax ak man mooy mel na ni sëñ bi bëgg na lool bokki taalibe yi nekk fi ñu jàppale leen ndax wax ja yëpp la ci ëpp solo bu la ko ci gën a yitteel daal mooy bëgg na daal ku leen jàppale xamal na ma ne bi ma fa mujjee mu yoonu mujj wi ci la ma xamal ne ma boo demee euh, na nga ci soññee loolu ci euh, taalibe jàppale leen bu baax ndax ci bi ñu demee yoon wu jëkk ba muy ba ñuy yëgle ji jàpp ci bis bi am na yuñ ma tawaatoon ni bëgg nañ ko leen ci dimbali am na ci yuñ ci jotal sëñ bi mel na ni ca la xamee ni euh, jàppale gi am na wàllu yu ci xaw a des ba mu ci soññee daanaka loolu rek mooy li nga xam ne nii mooy kàddu yu bàyyikoo ci moom jëm si ci yéen jaara ci man waaye li ma santoon moom mooy ma teewal ko fi la ci ëpp solo daal mooy loola li ci des sëñ Daara dana ko àggale euh, ak sëñ Mahmoudan euh, ko bu yoonu murid nag dafa am lu muy doxe te it dañoo wax ni ndigal caabi la bu ëppee du tijji du yéeseet du tijji moo tax xam naa ñu bari sax dinañ séentu euh, comme ni ma daan baaxoo defe wàllu soññee ak yooyu waaye damay bañ a xëtt ndigal comme sëñ bi ndigalal teewal ko fi rek la ma joxoon joxuma ndigalal wax euh, naa yem ci ndigal li ma joxoon danga ma fa teewal rek la ma wax ci sëñ Baara bi moo koy wax defe naa yaa nga fa woon bi sëñ Seex Coro di jot lii euh, wax ji fa la la fekk comme nag teewal ma fa rek la ma waxoon li ma fa takk ci lu ma jox ndigalal ma wax ko daal mooy ma soññi leen ci ñu gën leen a jàppale ba tax na dama defe ni damay yem ci loolu rek ndax bañ a jéggi ndigal joxuma ndigal ma wax teewal ko fi rek la ma waxoon yaakaar naa teel dama ñëw lool itam ñu ci bari ci yéen maa leen fi jiitu ci fi laa fas yéenee nekk bañ yeewee ba ma soog a bu ko defee ndigal li mat li ci des nag waxoo kàddu yi moom euh, dama baaxoo saa bu ma fi nekkee sëriñ Mahamadan mi su fa jegee rek lu ma war a wax moom laa koy jox waxal ma ko li ci des ci aji ci wàllu sëñ bi sëñ koy gën a leer laa léegi nag bi mu defee ndigal li ba noppeet nag am na loo xam ne nii taalibe bu ne sañ na ko bu dajee ak mbokki taalibeem e, sañ nañoo soññante waaye jamono yii dafa am lu ma baaxoo def ndaje murit mu ma dem e, dinaa fi yëkkati kàddu yooyu sàkku ci itam wut ci ndimbal bokki taalibe yi dimbali ma ci muy eh, wàllu leeral ci xew-xew yi am fi mu nekk nii te fu may waxe wax ci sama kàddu bopp kenn sax doyuma ci dama bëgg bokki taalibe yi di ma ci dimbali muy yéen ñëpp gis ngeen wàllu xarala yu yees yi mooy li ñuy wax internet ni ci coow li bare fi mu ak ni euh, ñuy bind ci li ñuy wax whatsapp ak euh, euh, waay bëri yeeg ak kii yooyu mel ni ay werante da ci xaw di bari léeg-léeg ak ci wax ak ci tontonte te loolu mu mel ni noonu sëriñ bi ci seeni pexe solo la loolu bàyyi ko bu ngeen ko seetloo fim mu ne euh, waxtaan yoo fi defoon ci siyaar bi fa amoon ci euh, weer yee te ginnaaw def naa le 23 août la woon xaw ma si août la yaakaar naa 23 naa ko biñ ci tegee ab diir tuuti rek dégg ngeen coow la fi amoon Amérique xew-xew ya fa amoon bi ñu toogaatee tuutee déggaat ngeen lu mel ni yëngu-yëngu yu amaat Tuubaa ca jumaa ji xeeti yooyu ay pexe la yoo xam ne nii noonu sëriñ bi moo koy def li leen yitteel fi ne nii mooy liñ xamutoon ci yoon wi ñu tàmbali ko tey gis muy werante ak weddente ñu ñu ko ci woon ndax yoonu murit liñ ci xamoon xamoon ci xamoon ci taalibe yi di ci dox ak seeni njiit mooy yar ak teggi ak ormalante ak màggalante ak suturaalante ak jëfe ndigalal sëñ bi ak bàyyi ak tereer ak mbooloo mépp mépp mépp li ñuy bari bari bari bari genn kàddu yor su kàddu googu jógee genn lay doon geneen du jógaat noonu yi sëriñ bi nag li ñu bëgg ñoom mooy dindi loolu genn kàddu gi dañ bu kii waxee fee bu ëllëgee keneen waxaat fee te lii ci am akës ne ñoom xeebuñu ko muy werante yi am léeg-léeg léeg kenn def la ñuy wax def ak audio wax dara fee keneen weddiwaat ku fële keneen kii ko loolu ñoom seeni pexe dong la te fi ñuy jaar yaatu na yaatu ko xam ne gii neexut a xam may ñaan bokk taalibe yi ñuy bàyyi xel loolu képp koo xam ne nii song nañ la ci internet bi wala ci audio yi walla yooyu am dara lañ la wax ngir yàlla nga bañ a tontu ndax soo tontoo rek liñ bëgg am te bu yàggee dañuy mujj liñ miinutoon ñu miin ko te yarin yu laaju ko bu ñu ko seetloo itam ci ndénkaan yi sëriñ bi dénk ci jëmale ko ci ñuy sàkku xam-xam ay taalifam yu ci bari indi na ci laabiire yooyu boo demee ci bopp Masaalikul Jinaan am na fa fu mu fay waxe lu jëm ci wàllu sàkku xam-xam ak wàllu xam-xam wax dafa ay sikk yu bari yuy am ci xam-xam mu di ko moytandikul bépp xam-xam boo xam ne bii day indi werante wala xëccoo ak yam ca boole ngir wax ji bañ a gudd rek am na yu muy tere kita yooyu dafa mi ngi di am ci yoon yu fi lima nekk te loolu li ni moo ci saafara mooy nit ñi bàyyi xel loolu su ko defee koo xam ni nii wax nañ la dara nga war a tontu nga bàyyi xel ci ni kooku wax gi mu la wax dara wala song gi mu la song muñ rek la ba loolu la am ngir bëgg nga tontu su ko defee nga bañ a tontu ndax am na ay xew-xew yi am ci suñu biir yoo xam ne nañ ci daan def mën nañ cee delluwaat mooy mën nañ koo saafara ci suñu biir te ab jàmbur lu ci amu yoonu kenn du ci nekk te waxe biir néeg jërul dal di ko yóbbu ci penc te penc yi ñi gën a day sax mooy penc moo xam ne nii yemul am penc buñ ko waxee ab dëkk mu daa am penc waaye penc boo xam ne génn na dëkk génn sax am réew penc gënu koo rëy soo dee jël nag waxi biirub néeg di ko génne foofa euh, njaaxum rek ci jóge njaaxum googu nag lañu bëgg mu muy dox ndax bokk na ci li nga xam ne ni jaaral na noonu sëriñ Tuubaa yi ba yàq gi ñi bëgg a yàq të mooy genn kàddu su kenn waxee rek genn kàddu wéy ñaari kàddoom ñett du am euh, jéggalante ak euh, bañ a toppanteeg lu ñu miin ci noonu la fu mu am fu nekk jëyee dana fa jafe def bëgg gi ñu bëgg nag maanaam def jëyee ñoom moo indi seen pexe yépp jëm ci euh, tontonte di am ak weddente dinaa koy faral di wax ñi nga xam ne ñoo toppal sëñ bi te mu defar leen boo ko dee seet day mel ni ñi ci gën a safaanoo aw doxin nga xam ni kii na muy yare jabootam ak na muy yëngutoo ak na muy liggéey la sëñ bi ak kële day mel ni bu kii jëmee fii kee jëm fële bokk bokku ñu ñuy doxe ñi ci gën a safaanoo aw doxin dafa mel ni ñoo gënoon a xaritoo gën a déggoo gën a yëgante loola la ko waral mooy kenn ku ne sëñ Tuubaa jëloon teg ko ci sa kanam gisoo sa bopp xooloo sa bopp sa moroom sëñ Tuubaa nga tey xool defe nga ni moo la ëpp taalibe defe nga ne moo la gën a nekk ci ndigal waaye taloo di di di ko contre wala ngay dàgg ak moom loolu mooy la leen musaloon ci euh, tontonte ak xuloo ak dàgg sant pexe yi ñi saxeel nag mooy jikko yooyu ak melokaan yooyu di denc ñun ndànk-ndànk te ab saay-saay dañoo wax ni tekkiwul ngembam da koy yolomal rek bu gisut lu mu xam ñoddiwaat mu dal ngembal saay-saay moom du tas day yolom rek saa bu gisee lu mu xamul yolomal ngembali su su su su su gisee buntu tàmbalee ñoddiwaat ngembali dal loolu mooy li ci ne ñi nga xamante ni bi ñoo toll ñu toppoon sëriñ bi te mu yar leen ñi ci gënoon a ñu ñu ñu bokkut fuñ jëm ñoo gënoon a déggoo gën a yëgante loola moo leen ko mayoon euh, bu ñu ko seetee tam ñi nga xam ne nii ñooy ñooy njabootam ñu di leen tudd di ko tudd li ko tàmbalee ci cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci cheikh Mouhamadul Mourtada soo ko xoolee te seetlu ko ñaar ñu ci. kenn ku ne ci ñoom na muy ak moroomam jëfleen jëflante yi rafet lay doon ba day mel ni ñaar ñooñu kenn ku ci ne ka muy ka muy jëflanteel kooka rek la xamanteel kooka rek la sédd cër te la leen mayoon loolu ñoom itam ñu nekkoon benn ba ku ci gis sa moroom fàtte sa bopp kenn ku ci gis eh, doomi Sëriñ Tuubaa ju gis moroomam Sëriñ Tuubaa xool ca kooka ba ba fàtte boppam loolu mooy li leen aaroon moo leen dimbali ba ñu nekkoon benn euh, seen lépp nekk benn ñu mucc ci pexe tubaab yi ci wàllu tàqale ak yàq ma defee ni nag léegi ñu jéem a góorgóorlu ñun ñu fi nekk xool ca loola te roy ci kenn ku ci gis sa morom jàpp ni moo la gën moo la gën a jege sëriñ moo la ëpp taalibi nga roy ci moom fa sa bàyyi doon xool euh, bàyyam nga xool ko fa su ko defee moom it bu defee noonu xëccoo du am ñaari kàddu du fi am lii rek mooy li nga xam ne nii mooy euh, yóbbante bi may yóbbante te euh, doyul sax ci menn man kepp dama bëgg taale bi yëpp dimbali na ci jàppale na ci ci yóbbante boobu fu ay taalibe daje ñu bàyyi fa xel ci lii xew ci internet beeg youtube beeg ak yooyu ñu bàyyi xel ci ni ay pexe la yoo xam ni noonu Serigne Touba yi ñoo ko laal fexe ba dugal ko ci suñu biir dugg nañ ci biir taalibe yi dugg ci biir borom xam yi ne ci biir yoon wi ku ci ne fexe ba dugal ci sa bopp wala sa xel loo xam ni bokkut ak la daan ko defee day tàmbali di soppiku ndànk-ndànk ñoom yàkkamtiwuñ li ma waxoon léegi rek ngembal saay-saay du tas day yoroon. waaye fu mu fu mu jekkoo rek ñoo diwaat mu dal xeebuñu ci xeebuñu dara dara dara dara ci lu jëm ci ñaari kàddu walla ñaari ñu yorante wala ku ku wax ka ca des tontu ko su ko defee ne ñaan bokki taalibe yi ñu maasendoo ci di bàyyi xel loolu te di ko suuraale bu ko defee seen pexe yooyu ndax am pexe ba ñu la ko day fexeel boo ko xasee xam rek pexe ma yàqu soo xamante ni dañ laa wax dara lu dul noona ngay bëgg a tontu sa xel dem ci ni maanaam dañoo fexe ba kooku wax la loolu ngir nga tontu soo noppee tontuwoo rek fexe maa nga yàqu kooku buntu la ci lii nag maanaam sama wax ak yéen bokki taalibe yi sëñ bi moom lam ma digaloon maa nga ca ndigal la noppee gudd sax naam waaye maa nga ca waaye lii sama waxi bopp maa ngi yéen lu ma lu ma bëgg ñun ñëpp ñu maa seetlu ci bàyyi xel ndax noonu yooyu mbett mu rëy daf leen a dal jàppoon nañ ni njabootuk Serigne Touba gi bu jeexee ba sët yi des dañuy ñëw rek raatalee yi dem waaye bi ñuy jëlee seen matukaay yëpp song yëngal-yëngal mel ni yëf yi dafa xaw a gën a dëgëraat ñu am ak jaaxle li ma waxoon rek ngembal saay-saay du tas dañoo yolomal ngembal rek waaye fi mu jekkoo dangalaat ko ñu ngi ñoddi di dalal nag fi moo tax may ñaan ñu ñuy moytandiku internet bi ak audio yi mi ngi yàq lu bare bare bare fi te yëguñu ko seetluñu ko wolof yi dañuy wax ni euh, ab xeex soo ci nekkee te amu ngànnaay wala mënu daraat waaye say we yaa ko yor mënu lu kaata doom mooy kaaka ci sot la bokk ku fekkee ab xeex mënoo amoo yet amoo dara lu say we nga yor ngay domp di kaata yaa ngi yaa ngi sot yaa ngi xeex kaata nag ci laa toll <laughs> moom moom laa man waaye damay kaata bëgg ñu ñu yor gànnaay dóor ku mën a ku mënul lu dul kaata ni ma ne ngay kaata su ko defee yaa ngi sot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu li ci des mu jox sëñ Baara mu eggaleel moom ak sëñ Mahamadou سرين توبا لكل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى إلى التيجان أو انتمى سواء انتمى الجلال أو انتمى لأحمد التيجان أو لسواهما من الأخطاء استاذ dicendo دوك سي احمد بامبا Bamba سول مسالك الجنان al-Jinan una delle sue opere si chiama tutti è verde e, e hanno lo stesso obiettivo e loro obiettivo quale solo portare la gente davanti a Dio che sia un Tijan, che sia Murid, che sia, che sia Tijan, che sia Khadija, che sia anche Charles Sali eh, ovunque verde che la persona è prendere e se li pratica come si dice il creatore, suo creatore e li conduce davanti a Dio Il ne faut jamais se faire l'ennemi de celui dans la bouche dit la ilaha illallah. Il faut toujours être ami avec celui dans la bouche dit la ilaha illallah. Ne soyez jamais ennemi de celui dans la bouche prononce la ilaha illallah. lui eh, è il rappresentante del nostro califa generale del Muridia in Senegal. Il Muridia cos'è? In Senegal circa il 60% sono muridi e l'insegnamento di Shia Ahmadou Bamba cos'è? Educazione dei discepoli di eh, adorare Dio e lavorare. Eh, eh, c'è la sua propria storia come lo suo e in en gabon en liwi faccewa perdonare tutti i suoi nemici tutti i suoi nemici perché Dio era salvato davanti ai suoi nemici e lui ha perdonato tutti i francesi che gli hanno apportato otto anni in Gabon e gli dà perdono per l'amore di Dio perché Dio suo Signore che ha veramente salvato davanti ai suoi nemici e lui è il rappresentante del Califa Generale del Mourid è venuto a Senegal ieri e deve tornare ancora eh, il giorno 3 è venuto solo assistere a questa giornata dei convertiti eh, eh musulmani italiani che mm, è tornato dall'Islam. Hanno un, un, un, questa giornata del festa dei giorni dei, dei nuovi tornati dall'Islam che fanno questo. Per quello che il nostro, eh, nostro rappresentante dice, il nostro eh, califo generale dice, ovunque si, si, si, si, fanno le feste del, per l'Islam, eh, se lui le sente che potrebbe, possa per mandare delle delegazioni e possa anche per aiutare tutti. Perché dopo Abdoulaye ti spiega che Serin Saliu faceva una, eh, la, la, grande maison che Serin Saliu ha, ha jeté per nos frères eh, a, à Paris. Tu peux l'expliquer. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi taalibe yi ginnaaw buñ leen nuyo sant leen gërëm leen di jéggalu bu baax ci niñ ko daan defee suñuy wax kàddu yi ñuy yëkkati ci seen kanam ndax nun liñ gëm nga xam ne moom lañu sëñ Tuubaa yare borom daaru yar na ci mooy képp ku toog te mat ñi ci njaboot gi rek mooy suñu kilifa bu yëkkatee kàddoom rek ëmbaale na suñuy kàddu waaye kilif ndigal yi bu jógee yoon wi kenn mënu ci dara faaw nga yëkkati kàddu waaye kon nun fii amuñu fi ay kàddu yu ñuy yëkkati wala yu ñuy wax kenn ndax noonu duñ sañu ñoo joxe ndigal sañu ñoo joxe dara taalibe Sëñ Tuubaa lañ bu nekk ci seen biir àndandoo yéen ci liggéey Sëñ Tuubaa yi kon ginaaw bu ñu santee ci Abdou Salaam bu baax ci kàddu yu rafet yi ak téway bi ak pass pass bi ak ndigal li ko sëriñ bi jox sëriñ bi ñu lay jox sa wàccuwaay bu baaxa baax ni ko sëriñ Baara waxee légui amna solo moy wax dëgg euh ciono yi ñu lay tek yoon yu moo wacc waye kon ñu ne la noppalu waye yoon yu moo wacc yaaka na bu dé Cheikh Ibrahima wala ku man di doon ci magi sëriñ tuway waccé nañ ñen ba tay ñu bañ ne yoon wewul wàcc kon nag looloo la dal waaye kon naka ni waroon nañ laa fekk nga bàyyi nga noppalu di sant it mbooleem ñi nga xamante ne ñoo organisé yi yëpp sëñ Mbay Géey euh, sëñ Bëgg Fàllu mu Juuf ak gone yi ci àndal yëpp ak ñi ngeen ko àndandoon di sant bu baax it njabootu mu amatu Lamine doxalin wiñ ci doxale tey ndax dox giñ ci dox jàpp ci bis bi mbooloo mépp ñu soññi leen ñu ñëw jëwriñ yéen ñëpp sëñ Baara ñoom sëñ ñoom ak ñi ko àndandoo ñëpp ñu ñëw wax dëgg yàlla lu am solo la loo xamante ne nun daanaka ñu dee wax foofu rek la ñuy waxee bala ñu yëkkati suñ kàddu it ñu wax ci benn kàddu boo xamante ne sëriñ Abdou Salaam wax na ko léegi rek te mooy bi ci am solo man ñi ma sañ a waxal laa bëgg ñuy déglu fi ñuy waxee sëñ Baara junj na ko léegi wutuñu mbooloo wutuñu bëgg jiite wutuñu kilifteef ndax ñun dañoo gëm ni man am mbaabook man man day laa wax sañ naa ko wax sama bopp man damaa gëm ne ci taalibe Sëñ Tuubaa yi gën a doyee di ci laa bokk bu ma kenn xool ci ay maam Cerno Birahim wala fa ne doxaluma loola waxuma ko naam bu fekkee ci laa bokk ndax wóoruma sax ndax man yaakaaruma ne mag ñu doon liggéeyal Sëñ Tuubaa sax kenn mën naa am maqaama gëm ne daanaka sax defal nga leen dara wala bokk nga ci ñoom dara kon man fi may wax sama taalibe sama mbokki taalibe sañ na maa wax ak ñoom am na benn bis génn kilifa dañ cee toog wax ne ko tey yii ñuy def na nit ñi gën ne sëñ Mamoorum sëñ Mourtala lañ koy defal kum neex na tekkee ko na nen lu la neex waaye sëñ Mamoorum sëñ Mourtala lañ koy defal ndax lu tax ñu di ko defal toog naa moom benn bis ne ma ko sëriñ bi dox jii ñuy dox ci réew mi ak wax jii ñuy wax ak lu mu mën di doon na nga xam ne yow lañ ciy dimbale. te danaa la ko tegal fu leer ndax li tax ma ne la yow lañ ciy dimbale tey yoonu murit ñi muy baaxoo ñaanuñu ko yàlla yàlla na fi yàgg lool ba sut maam ay fan waaye tey bu fi sa doom nekkoon Mahmoudan Mbacke nekk fi Mahmoudan di bàyyi ci sa doom nga xam ne bàyyi la ci moom moo ko yilif ndax moo bàyyam ñoo bokk lépp tey waa Daaru Muxti gépp laay jël dikk lu ci moom jox ko waa Daaru Muxti di ko jox cër boobu yoonu mu kenn du dem ba jox ko sëñ dal kenn du dem sëñ Abdou Salaam mii waaye juróom muy jigéen sëñ Tuubaa ko jur kenn du dem ba jox ko yoon wi mu jiite ko tey bu fi doomi sëñ Maam Mor nekkoon sëñ Abdou Salaam jiite njenne day ànd ak waa njenne yëpp dikk toog ci sukk ci doomi sëñ Maam Morum sëñ Murtala ne ko yow lañ yaakaar adduna ak àllaaxira léegi di la bokk yi kon ñoom nañ xam ne yoon wi luñ ciy def ñoom lañ koy defal ñun defaluñ ci dara suñu bopp kon nag taalibe yi nga xamante ne dañuy nettali ak di wax ak di dem buñ fi jógee lenn lu nekk ñu wala ñu tërale ko mu nekk ba a yàq mbooloom Sëñ Tuubaa bi nag nañ xam ne li ñuy wax waxi tappale rek la du dara mbooloom Sëñ Tuubaa mi kenn mun leen a yàq lu ci waaye di def boppam rek la ko yàqal waaye kenn mënut a yàqal li mu ciy def sëñ Maam Mor la koy defal Mahmoudan li mu ciy def sëñ defal keneen ku mu ci man di doon di ci yëngutu li muy def sëñ Maam Mor la koy defal ndax sëñ Maam Mor mën naa dem ba nekkum sëñ Tuubaa tey jii doomam mën naa dem ba nekkum sëñ Tuubaa tey jii doomi Mahmoudan du dem ba nekkum sëñ Tuubaa ci adduna do mën naa nekkum maam Cerno Birahim nag waaye du nekk sëñ Tuubaa kon ñii nettali ak di wax nañ xam li ñuy nettali ak li ñuy wax toogaayu sëñ Abdou Salaam bii tey defar jataay bii jàppale taalibe yi na sëkk bu bëggoon ak njaboot bu bëggoon ak njaboot képp maam Cerno Birahim bi ko sëñ Tuubaa seen seddu ko ko yàlla bind bu fekkee dëgg rek lañ bëgg a dégg 40 kilomètres la ko jox yoo xam ne li mu ko jox ëpp na junni nit yoo xamante ne ñëpp nga fa koo ci digal mu def koo ci tere mu kon loola ku doon wut mbooloo da nga teggi mbooloo mi waaye da nga dem ca mbooloo ma la sëñ Tuubaa jox ndax la yi nañ xam fi ñuy waxee nan dugg ci lu ñu war a dugg yam fu ñu war a yam wax lu ñu war a wax def lu ñu war a def jëf lu ñu war a jëf te fexe ba njabootu sëñ Tuubaa gépp nekk benn buñ ko deful dañuy nax suñu bopp kon nañ bàyyi njabootu sëñ Tuubaa ji ñuy tasaare nan ko baax njabootu Sëñ Tuubaa gi ñuy tàqale nañ ko ba te lépp nag ñi ma ko sañ wax laa wax kat ci ñun taalu bi yii la jógee waaye jógewut ci sëriñ sa jógewut ci sëriñ sa kat sëriñ si gisoo benn sëriñ buy taal otoom dem sukk ci sëriñ naan ko sëñ Abdou Salaam ñëwoon na Italie barki dem bu def na fa dara Mahmoudan demoon na Italie def fa barkat ñun ñooy dem ci sëriñ sa di nett ku ci yàlla dogal nag ba nga jubóog sa sëriñ na nga ko nett ni la sa sëriñ di jóo la sa sëriñ di gëm ba dal ca kaw nit ñi te fekk nit ñi defuñ dara kon nun nañ seetaat suñu bopp bu baax a baax nan seetaat suñ bopp bopp yi de nan yeddaat suñu bopp te xam li nu Serigne Touba boole xam li nu Serigne Touba defal ak cër bi mu jox kenn ku ci nekk ci ñun Serigne Touba jox na lu la doy sëkk loo xam ne boo ci doon xëy suba ba jant bi soo du lijjanti kon nag nan yem ca loola te ba a dugg ci lu suñu yoon nekkul beneen bi ci des muy ñi organiser lii ñi organiser bokk yi bañ nañ ko ba dañ ne turu ansaar la ñuy wax ansaar bokk yi mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne bañ demee ay njabootam dem ñu fàtt leen defal leen lépp ndax ñun la yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak njabootu yonente bi lañ defaroon waa am saa ndax ñun àggagun nañ ko ba nañ dem nañ bay séddoo ay jabar ku ci yor ñaari jabar ci mbooloo mi fi ñëwoon te amuñuy soxna nga bàyyi sa nga ne nga ne mbooloo mi dikkoon te ma fat leen seetal sama soxna yi ko ci bëgg ma wàcc ko te yow nga jël ñun àggaguñ ko tey dimbale wuñ leen jàppale wuñ leen lu dul di xëccoo kenn ku ci nekk di wax loo xamante ne la ngay wax saw yoon nekku ci te nun waroon leen a fat fexe ba jël suñu doom yi may leen ko doom yu jigéen yi fexe ba jël suñu rakk yu jigéen yi may leen ko fexe ba jël ay nit ñoo xam ne duñ leen nax duñ leen war duñ leen def dara ñu teg leen ci yoon tey mbooloo mi kenn jàppale wu leen waxee ñu mbay géeye wala bëgg fa loo fa wala nga fa la nangam ak nangam te la waya mbay géey waaye mër juuf war war kaneen moo la war moo la war ndax jaboot sëñ Tuubaa la jëkkuñu ne maam Cerno Birahim seen seen jëkkuñu ne Cheikh Ibrahima Fall seen sëriñ sëñ Tuubaa yi seen sëriñ lañ wax ñu jox seen bopp nag nun ñëpp ko bokk kon bokk yi dañu leen a war a jàppale lu ñuy def ñu def leen ko mun noo leen war a fat noo leen war a may suñ doom yi noo leen war a may suñ rakk yi noo leen war a jànga ñoo leen war a yar ñoo leen war a jox même suñu alal tey fi mu toll asaka ji ñuy génn di ko yóbbu Sénégal sax du ko faral asaka yëpp dañ ko war a téye fii dimbale ñoom ñee ñu seet ku ci liggéey duñ jox la waaye asaka yi ñuy joxe sax du farata dañ ko war a dajale fii ndax ñoom ay wabnu sabil lañ ay doom yu dugg ci biir yoon wi lañ ñooñu nag fi mu toll nii asaka sax mën nañ ko lekk suñu asaka yii ñuy jox mën nañ leen koo jël waxuma la asaka ji waaye daayira yii ñu fi am sax buñ demee ba doomi réew mi ku jébbalu ci sëñ Touba soxla ko li ca daayira yi avant ñu ko yor sëñ Sidi Muxtaar nañ ci dimbale ki bokk ci doomi réew mi ba noppi door ko la ca des ñu door ko ñu lislaam wax nag laa wax su fekkee dégg nañ li ñu diine wax suñ ko déggul nag mooy tax ñu tañax tañax di làmbatu kenn ku nekk di jëm fane beneen bi ci des nga xam ne ci lañuy ci la ñuy tëje ndax waxtu bi ak kër gi jox war may kër gi du gudd sëriñ bi junj na ko léegi te muy lu ko ñor wax naa ko ko léegi ci biir jotaay bi nee naa ko coow li coow li nu na coow li coow li nu na coow li sëñ bi doon wax yépp nu na yi am Amérique ñu na yi am Touba ñu na yi am faneen ñu na ndax nun mooy nettali sa kilifa day ñëw nangam nga dem ci kilifa jàmbur dem ci sa kilifa ne ko diw nee na nangam diw nee na nangam jaxase koo kilifa ba kilifa nga bëggatu koo teg ba mu xëy wax loo xamante ne adduna bépp dañ naan li sëñ wax te fekk nun noo ko def te fekk nun noo ko def keneen defu ko ko dul ñun dugg ci internet yi nga xamante ne defut lu dul jaxase yoonu murit yëpp ndax nun murit yëpp bañ ko jëlee ba léegi ñu tey jii nii toujours ma wax ko ci jataay yi te war nañ ci bàyyi xel jataay bii nu toog tey boo ne woon Serigne Abdou Salam ne leen ñëpp nañ génn seen téléphone ñëpp ak Mahmoud dana yam ay iPhone lañ yor ay iPad ay ay Samsung Galaxy ay nangam a nangam yoo xam ne ay 500 700 euros lay jar boo ne woon addiya tey jii nii mbuus yi moo ciy nekk ay kéemtees moo ciy nekk ñu yaakaar ne dañuy nax Sëñ Tuubaa suñ bopp rek la ñuy nax naxuñu Sëñ te ku ci man ko téléphone balaa ginnaaw suba da nga ko jëndi ndax munoo ñàkk whatsapp yi ñëw ci yow munoo ñàkk Viber yi ñëw ci yow te day jaxasi sa njaboot di jaxasi sa alal di jaxasi sa diine di jaxasi saw askan di jaxasi sa lépp bërki démb am na ku ma ko def ci événement Amérique bi yónnee ma ab ne ma déngali sëñ Maam Mor wax sëñ Maam Mor day waxati nag wax ma ne ko yow li ngay wax sëñ Mamoor da nga ko koo ñëmewut a wax waaye yow mi waa ji ko doon wax lii mu koy wax yow yaa ko ko gën a yéene da nga koo ñëmewut na xëy na waaye yow yaa ko gën a yéene li muy wax bokk yi nan del siwaat nan del siwaat mag ñi daaw ñu dunde lii sëñ Abdou Salaam wax na ko léegi ci la ñuy tëje sëñ bi maam Cheikh Ibra Fall sëñ Abdou Salaam junj na ko léegi ñun danañ a wax tur wi Cheikh Ibra Fall ak sëñ Mbàkke Bousso ñoom ñaar kii daa jëm fii ki jëm feneen fa ci des kenn bokku ci moroomam ni ñuy tarbiya ak sëñ Daam Abdourahmane te ñoom ñett ñoo gënoon a xaritoo ci yoonu murid Serigne Darou Abdourahmane bu gisee bu ko masaan gisee maam Cheikh Ibrahima Fall dañuy laxasoo ñoom ñaar ba def lu ma 30 minutes yoo xamante ne kenn du nangoo bàyyi moroomam ndax bëggante buñ bëggante ci seen biir te Serigne Darou Abdourahmane sax ci alxuraan kese Cheikh Ibrahima sax ci waneen yoon mais Serigne Touba jëmmi Serigne Touba ji taxoon ñu bëggante kon bokk yi nun nañ roy mag ñi bëggante ngir jëmmi Serigne Touba te bàyyi wax yi ak coow yi ndax tas suñ gi suñuy dëkk tas suñuy sëriñ tas suñuy kilifa muy internet bi nga xam ne barki démb dong la xew tubaab yi mënatuñoo yor jaasi di ñu rendi wala ñu yor paaka di ñu rendi fexe nañ ba dugal internet ci internet lañ ñuy rendee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu